برهام باء وراء ألف ثم ها ميم مجل فيض تيجان جخن نينان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على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 mbollem wa Senegal ak bitim réew euh, li fi taja euh, taxa dajé tay mo moom ni ñun dañu yor ben daara bo xamni daara bu mag la fii ci euh, département Mbour commune dias dekk bu ñu wax Toglu serreur xamne bo fay ñew da ngay wàcce fi ñuy wax garas benteñe digënté Toglu ak Dakar defna ay 47 kilomètres dañ fi yor daara ju mag nak daara ji ubbi nañ ko depuis 1995 bobu ak léegi nak ay xalé yu bari mokal nañ fi alquranul karim ren nak dañu degmal besu alquran ci datu 18 ak le 19 ci wèr wi mai incha allahu ñu war ko defee ca école publique ba ci bir dëkk ba ah loolu moo tax ñu daje fi tey nag pour yégal ko mboole mbokk jullit ñi pour nag ñu ñëw mën koo teewe incha allahu loolu nag ñu ngi ñaan yàlla yàlla may ñu wër ak sexa ba ñu mën a fekk bés boobu waaye nag ginnaaw loolu ñuy ndokkeel ñëpp ci weeru koor bi tamit te xam ne weeru alquran la yàlla na yàlla may ñëpp wér yaram ba ñu mën koo jooxe dugg ci ci bismillahi rahmaani rahim jéegal jeexale ko ci alhamdulilahi rabbil alamin ah, ginnaaw loolu di nuyu kilifay télévision bi nga xam ne moo ñëw fii si seet si ñu tey muy alfayda tijaniya di ko ñaanal yal na yàlla yokk télé bi waaye yal na yàlla yëkkati ko ba mu egg fi télé yëpp yegg incha allahu ñu ngi leen di gërëm leen sant bu baax. إخوة الإيمان نحييكم بتحية الإسلام المبارك ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ذلك نهنئكم بحلول هذا الشهر المبارك ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يتقبل جميع العبادات وأن يضاعفها أضعافا كثيرة وبعد ذلك كما أسلف كما أسلف الوالد حفظه الله والإخوة ندعوكم في هذه اليوم في هذه الحفلة القرآنية التي تقام في قرية توغلو سيرير في مقاطعة مبور إقليم تيس بين جو وجس المطار الجديد يعني القرية موجودة بعد جو قبل جس والمسافة بين القرية والدكار 47 كيلومتر وسوف آه، تقام هناك هنا هذه الحفلة بتاريخ 18 و19 في الشهر الجاري إن شاء الله في المدرسة العمومية في القرية المذكورة سوف يسمع فيه عدد من حفظة كتاب الله تعالى وبعد ذلك آه، نجيزهم بالقرآن الكريم نعطيهم شهادات حفظ القرآن wa man wa kullu man wasalahu hadihi alkalima fa hadihi hiya daawatuhu wa bi xudurikum takmulu sharaf wa jazakum allahu xayra aoudu billahi min alsheytaani rajim bismillahi rahmani rahim summa salaatu wasalaam ala rasulillahi salallahu alayhi wa sallam assalaamu aleykum wa rahmatullah ɓooɓi e, mbokka mbokkaaki mbosaabi ci ɓoo tout ɓooɓi kañi ɗum tigna kañis ɓooɓi balnuk ɗo aha ɓooɓi balɗo aha boobu santaadu it baaxoon na ba wani kay na fina nga wiine wattax bo coxndi woti jaabi ba haya bo marqué wani ka euh, affaire ing darndi nga wiine watnik ndi ngang toglu darndi wo sosut ngang 1995 ngang toglu ndi ngang i jaari fina nga wiine ay sos darndi a meede woyu oustas ahmad fall rahimahullah ko hif ina nga wiine nag dara wonji de wiya kem darndi po a kattana ay kiis rakka koma kimmoki ko alhuran gade ko ɓayeɗe fina gayine ay uɓɓode waat ay bindede wi godi bo aheɗe bayeda ata gondi bo wa ɓay ɓode ko dimbali eh, sabo a kombo bo oustad saleh fal ndi a continue so dardi bo continue so naɗi ngana koma ina nga bine ɓe janngo darndi poko dimbalisa ba ɓe mokkita alquran ɓe dokkisa ɓe tanndi in wiris ɓe tandani ɓe hanki jangɗo he ngan darndi darndem waɗini ka ngan toglu ndi ngan kahni waysan kahanjer wate kusa dara malik fall komo kifinanga ɓini nak ɓaɗ janngo he nga po ba mokkita alquran ba dokkisa ɓaɗi jannga ɓani ka e jarna biti bi ba jar ɓe muñde in cimɓe jeen ɓe joyen min kat jangɗo ha ngan kurki ngan kurcicinoci wawi ɓa munja ɓa wone ɓa tayɗu kane ɓa jango ndi ini ɓa jango ndi waɗɓa hanki wiki senga ɓaɗi ɓa hana bo ɓiɓititit ka naka noon ɓinoɓi kadi pohara jangga ngan kurcangnar caɓa hay ɓaɗi jangdohnamo ngan dardi ɓaɓa yeyit wallanin ɓitiɓti waɗɓa ɓayo ni kafindi adama ɓi aissa nabi bo wiris assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu bokk jullit yi ñu ngi leen di nuyu di kontaan ci yéen di yëgal conférence bi ñu dëjmal muy le 18 19 mai bi le 18 bi pour waa dëkk bi la le 19 bi pour ñu fi dëkkul la léegi ñu ngi ci woo mbooleem jullit ñu ñëw déglu si alquranul karim إن شاء الله يعني يلا ما يفككوا إن شاء الله ويغونا جلد نيب بوك جلد نيب وغونا لين كون يملين دي بس بوب إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله لا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 ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله و فأحياكم فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokki jullit ñi gannaaw bi ñuy sante yàlla julli ci sangu-sang ñu ngi leen di ziar di leen jox seen wàccuwaay ah comme ni ko mbokk yi waxee wax dëgg si yàlla wax ji leer na benn daara moo fi nekk comme ni ko mbokk yi waxee daara ji nag wax dëgg si yàlla bég nuñ ci moom lool ndax damay faral di wax ni làmp bi gën a leer alxuraan newul ci kaw suuf te lépp luy defar nit moo ci jiitu kon loolu lu tel ni moom newul ci kaw suuf ah daara ji nag comme ni ko mbokk yi waxee wax dëgg si yàlla tàmbali nañu ko ci 95 eh, wax dëgg si yàlla depuis boobu ba léegi ci soxla nekk ñu ngi woo mboole mbokki jullit ñi yàlla dimbali itam ñu mën ci dugal seen loxo ndax daara ji fi ñuy waxe ak yéen nii taalibe yi ci kër la ñuy jàngee suñu yéenee nag wax dëgg si yàlla amoon na béréb boo xam ne moom lañ ko jagleeloon waaye jamono ni muy doxee ñàkk doole ak ñàkk moyen moo tax loolu am ñu ngi ciy wut pexe di ci woo képp kuy jullit damay faral di wax ni yàlla su wootee ñuy am sens ñooy wuyu kon ñi am sens joxoon nañ leen projet bi daara ji wax dëgg si yàlla comme ni ko mbokk yi waxee eh, yàlla da ko teg tooglu teg ko ci kaxanjeer teg ko ci loxo Saleh Fall waaye jullit ñépp ñoo ko bokk kon daal ñu ngi ciy woo ñépp képp ku dégg woote bi wax dëgg si yàlla ñu ngi la ciy woo nga dugal ci sa loxo dugal ci sa yéene wax dëgg si yàlla jafe-jafe bi moom jafe-jafe yi fu ko nit natt rek romb na foofu waaye e, ni ko yàlla ni yàlla di dogalee mbir rek noonu lay doxee kon ci gàttal daal ñu ngi woo umma saafeen umma Senegal, mboole mbokki julit koham xam ne daal am nga yéene pour dugal ci sa loxo bunta bàngoog su ko defee comme ni ko mbokk yi waxee wax dëgg si wax ji leer na comme ni nga koy faral di waxee dañuy gérer temps bi bés bàngoog bésu alxuraan la bésu bokki julli yépp la kon suñu juumee itam ngeen jéggal ñu itam suñu matale loolu ñu ngi koy sante yàlla wasalaam asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إِنَّا